depuis 2001 boobu ba léegi nag ñu ngi ci juguñ ci. xale yu ndaw la ñu woon waaye fi mu nii ñëpp ay mag lañ te liggéey bi lépp ñoo ko yor. ñaar fukki at yi daayira bi am yal na am téeméeri at ba seeni sët sëtaat di ko def ndax sëñ Touba mën na lu ëpp loolu sañ na ko. yàlla suñu borom mën na ko sañ na ko am na ko yal na leen ko defal. kon damay dellusiwaat ci sëñ Saliou. Saliou waxoon mi ngi mi woy mi ngi woy waaw loolu sonn nañ ci yàlla bu baax. daayira bi bi muy commencé Ndorane dafa amoon yëngu-yëngu bu guddee mag ñi duñu nelaw kenn du nelaw kilifa yi duñu nelaw ñuy misik di dajaloo. ginnaaw gi nag lu ñu waxtaan daane dañ war a samp daayira si lañ commencé nag def daayira biñ demee nag ba xaw a def ab diir nag léegi dañuy dem ziare ji ki fi toogul sëñ tubaa ndax mu jox ñu tur ndax ñu mën a wala liggéey bi. waaw bi ñu ko formé ci 2001 rek ci murid yëpp seen xol bëggoon lool ñoom Touba ziare ji ci loolu nag ci lañ ziare ci at moom lañ ziare ji sëñ Saliou. bi ñu demee nag ziare sëñ Saliou 2001 si la ñuy jox turu daayira bi mépp taxu saxaada te it wax si lu lu lu am solo. waxi sëñ Saliou ji. da barke bi da cee topp ndax topp jëm ca toppoon mooy nasax ji sax gi mu sax tax na mu defi bànqaas ba fu ne mën nañu wax ci àdduna bi mu law fa law gi mu law ci àdduna bi nag ndey ji mooy kawlax gi nga xam ni fi lañ ko sosee waaw tur bi nag suñu saa yu moo ko joxe woon dag jël mu ne koy ziar boo xam ne it murid yu bëri seen xool amoon ci tawfeex waaw ndax yëpp yaa gis nañ jamono yooyu suñu saa gis-gis bu leer nañ yaakaar naa sax gis boobu dafa abbu bindukaay dane sëñ dañ jaxate tub laa fàtte mu ne ko alma bindukaay fekk am na fëy bi mu yoroon moo binda loxoom Miftahoul taxaw daan ne na sax di sant jigéen ci koñ bi ndax loole bu ñu sëñ saali wutaloon tur xale yi bëgg a bindu seeni waajur tere leen kon daayira bu yegg si fii waaye ku dem wax sa waajur sa waajur ànd ca daayira boo yeboo ne mag ñi sax ñoo ko sos ndax xale yi tuut tànk yi boobu mënaguñu daal ñu ngi ci école bi bu daayira jotee euh, seen yaay ak seen paapa yi ñëw leen di jox bu cant gi jotee seen yaay ak seen papa yi ñoo leen di xotti jox leen luñ luñu lu ñu joxe. su ma juumul 2001 ziar bu njëkk a def booba laa booba moom laa moom moom laa si demul ndax su ma ko fàttalikoo boobu euh, oto yi bu ñu doon su ñu kër lañ doon déparé jërë jërë Ablaye Gumba la boobu maa ngi maa ngi doon jooy. bëggoon bëggoon a dem mu ne ma yow doo dem parce que bokkoo si daayira bi waaw léegi nag loolu euh, looloo tax euh, bañ jugee jógee ziar ñëw si laa bindu si daayira bi kon mën naa ne 2002 laa bindu si daayira bi ba ba léegi. wax dëgg yàlla liggéey bi tëbu ñu nekk ci dañoo am ñu ñu ci nàmpal am ñu ñu ci forcé ndax forcé ga ñu ci force mooy dañ ci daa gis lu métti lu ñu ci daa daj bi ñu koy ànd ak ñoom dañu ci daa teg lu métti moo tax bi ñu fi bàyyi koo bàyyi ñu liggéey bi ñu ndax la tax ñu mooy lañ doon sonal. ñoom ci njëlbeen nga la ñu ko defoonoon du ko ànd ak ñun ndax ku ne xam na ni tut tànk bu bokkee cib liggéey lu toll ni ziar nga di ko ñunal jox ci yoonu Sëñ Tuubaa ak ngir mu war a xam ne yoonu Sëñ Tuubaa jëf ci am solo dañ daa toll xelum xale jàpp ñu lu demee ni ay ziar bu ñu ko daa def daawuñ xeeb suñ juróom yi ndax Sëñ Tuubaa ji nawu ki ci def juróom waaye nawu ci ci def milliard xamal gi ñu daa xam ne yoonu Sëñ Tuubaa joxe ci am daana tax dañu daa koñe ci lu baree bari ci liggéey bi koñe ji ñu daa koñe nag mooy wàllum ziar daana jot ñu ñu wax ne bu ngeen amul du ngeen dem maanaam ñàkk a dem googu dañ koy fësal ba bu ziar jo taataan daawu ñu yóbbu ñu dem bu ñu matalul ci ay àddiya léegi nag bu déwén jotee wala bu delsee dañu daa jaral kondaane booba fukk ci ñun daa nga ci am lu bari daa lay jaral di ko denc ndax da nga naan kat ku matalul lu dem te li mu wax da koy appliqué. boo xoolee 2002 2002 2003 boo si boo si génnee euh, at yu ñu am boobu nekkoon na euh, amoon nañu ay at yi néew a néew a néew léegi boobu dañ doon def ziar bi maanaam gars yi dañu koy métti lool. dañu doon def ziar da doon tomateeg mu nekk vacance dañuy jàng ba ba vacance jot ba vacance jotee dañ doon ràbbu ñàmpe ñàmpe lañ doon ràbbu di jaay ñàmpe du ko jaayee ñàmpe téeméer dem euh, joxe ko si daayira bi ba suñu sas mat loolu loolu loolu loolu maanaam euh, kii la lu ma lu ma lu ma si neexoon la. dafa am ziar boo xam ne 2005 la woon doo ñëw di ziare Sëñ Saali Mbacke bi ñëwee nag samedi sax bi ñëwee. ñu nekk si dugg si kër si si kër sëñ bi toog di jàng bi ñu jàng ba noppi rek Baye yaakaar naa su ma jumul daane ana ñuy kuréel nañu agsi si biir ñëwaat agsi si biir ñu ñoo ñu nañ gën a sës si fii sëñ Saliou di génn xam nga si fenêtre bi lay lay lay génn day nekk si biir ibbi fenêtre bi mbokki taalibe yi toog yaakaar naa su ma su boobu ñun ñu ñu doon jànq saa it ñoo sës si fenêtre bi mbokk taalibe yi toog toog nee. bi ñu jàng ba digg bi rek ne jëkk rek sëñ Saliou ibbi fenêtre bi jàkkaaru ñun loolu nag mark ne ma lool lool lool te loolu yaakaar naa pour am ko dana jafe lool. boobu yëg moom day des ci man ndax euh, dëgg la euh, yoonu suñu Tuubaa ku ci ne am nga ci waaye jóg bëreet jox xalifa suñu Tuubaa loxo yëg-yëg boobu ci daari bi rek laa ko amee jóg jox xalifa maam Serigne Fall loxo muy sëñ Cheikh Jëmb Fall nga wax jox ko mu wax delloo la loolu ci daari bi rek laa ko amee. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax te loolu yaakaar naa moo tax liggéey bi gën a jëm kanam parce que daayira yi bëri na fi waaye suñu daayira bi suñu borom def na fi taxaw boo xam ne moom ku fi nekk rek da ko yëg sa xol loolu ñu ciy sant yàlla bu baax a baax baax a baax bokk na li ma gën a marqué yeneen yeneen nag waaye nag boobu li ma gën loo xam ne du ma fàtte mukk bi euh, euh, laa cellule Dakar nag daanaka mën nañoo wax ne comme niñ ko waxee ne moom lañ ko taxawalee niñ taxawalee siège bi fii mooy fondement bi fii noonu lañ ko taxawalee foofu ndax daanaka waxtaanuñ ci sax lu yàgg lu dul jokk jékki-jékki rek daanaka mu tabbi suñu xol ñu yëgoo ci ak ay mag rek ku ci mel ni ay sëñ Basiiru Joom ñu nekkal foofu Dakar ak sëñ Jibi Jaxate ak sëñ Xaadim Amar ñu rafetlu ko lool lool sax bay bañ commencé liggéey bi ba jàpp sax di ko defee dimanche ci kër jëw ni sëñ Bassirou Diop mu am ci pëseef ak yëg-yëg gu goo xam ne kawe na njort lool ba mbokku taal bi mën nañ koo seede bis bi fii li muy tombeel ñu si bëri lañ ko baaxoo def mooy génn di def yi def yi yeneen ak ñu nag suñ tubaab dimbaluñ ñu ba ñu ne nañ ko nañ ko nañ toog la dajal xale yëpp toog jaamu ci yàlla liggéey suñu tubaab lii daal moo waral bisu cant gi. 31 bii nii day tomanteeg ñaanu suñu saalu incha allah le 22 gannaaw le 29 le 30 le 31 defal ko ñaan kon nag suñu borom si defee nag suñu cant gi def mu tombate ñaan sëriñ sëriñ sëriñ ñaan mi defal ko sëriñ bi loolu dañ ci sant yàlla bu baax waa moom daal xol yi dafa fees ndax yaakaar naa ne bu daayira bi am woon fii si koñ bi maanaam euh, heure bi mën nañoo fekk si leneen heure bi mën nañoo fekk ñuy préparé yeneen événement yoo xam ne bokkut ak euh, daayira waaw kon yëg-yëg moom sant la rek sant sant suñu tubaab baax a baax sant magi magi daayira bi waaw sant magi daayira yu fi formé daayira bi ba heure bi di sant bu baax a baax a baax baax. ñëpp su ne ba jàng xasaayit kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di sant sëñ Tuubaa bu baax. tey ñaar fukki at ñu ngi ma yàlla taxaw ñu ñaar fukki at ñu ngi wax lu ñaar fukki ngi liggéeyal a ñor nag li ma ci gën a moo ñu dimbale ba ñu def si loo xam sax kaw na njort kon loolu dañ ciy sant suñu siège ba nga xam ne wax dëgg yàlla mooy kër Baye Cheikh Diop di ko ñaanal lépp lu ñu fa liggéeyal suñ Tuubaa yàlla na ko fekk bar sàq mook mboolum julli ak suñu wajur wolof dafa wax ne bu lëkk lekkee olam da koy gërëme cooy waaye dañ ciy gërëm suñu yaay joo dañ koy wax soxna Lootu Ture euh, soxna Lootu Ture nag bu ñu waxee dañ ciy ëmbaale suñu wajur yëpp képp koo xam ne yaa bi daara bi ndax moom dañuy wax ne ndeyi daara la moom mooy yaayi xale yi mooy yaayi baay faal yi mooy yaayi murit yi mooy yaayi mag ñi mooy yaayi ndaw ñi laxasaayam gi tekkiwu ko benn yoon te wéram mayu ko ko ndeyi daara ji mu doon maanaam tax na lu lu lu lu jëm ci wàllum soxna yi mu ngi ciy def yar boo xam ni mu ngi ci dox doxalin boo xam ni loolu suñ tubaa moom fay moom rek moo koy fay. kon loolu ñu ngi ci ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di sant sëñ tubaa bu baax rawatina nag suñuy doom ak suñuy suñuy rak xale yi koñ bi ku si mën na ku si jàng sax wax mën naa ne jàngu jàngum euh, ay rab yi ngay ngay jàngantoog ay ay ay ay ay madal xabiru te loolu it liggéey bu am solo la parce que ku ne xale it suy suy màgg di jàng. li muy dégg rek si lay si lay si lay jàngoon kon suñu borom suñu defee loolu ba nga xam ne suñuy dooma suñu rakk ku si gën a àdduna rek sooy jàng wax sax si xasaar nga jàngee wax loolu nag ñu ci sant yàlla bu baax a a baax a baax. Serigne Touba ab liggéeyam amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am. yal na leen yàlla musal cat musal leen ci saytaane yoon wi ñu jaar yal na yal na leen yal nañ ci am ndam kenn ku ne yal na toog ba ak njabootam yow ci barke Serigne Touba Mbacke. nga toog ba say sët yor la ni ñu yore seeni waajur nañ toog ba seeni sët yor leen loolu rek laa ñaana ñaanal ñi sama kër ñi ci biti ña génn mboolem ku bindu ci daayira bi ci njaboot bay boobu nag njaboot bu bindu ci daay wala Touba Ndorong rek ku fi ne góor di jigéen di mag di ndaw yal na am téeméeri at ba seeni sët sëtaat di ko def saa bu ma jullee li ma ñaa yéene sama njaboot yi wóor na Serigne Touba moom laa lay ولي غد بيننا كتابك ديني وخلي ومونسي هداني بلادي ونفسي بزكاة كتاب كريم للكريم المكرم